gis nga bu yàlla waxee ne maa ngi leen di tàggatalal jant ak weer ñuy dem ak dikk ngir ngeen mën a économie ci temps la nee man maa leen tàggatal guddeeg bëccëg itam jox leen lu ne ci lu ne jox naa leen lu ne ci lu ne yàlla ne bu ngeen doon jéem a lim di jéem a xool li leen yàlla defal ci ay xéewal du ngeen ko man xéewal ak bët kan moo ko mën a calculer ba nga juddoo ba léegi yaa ngi gis xéewal ak wax xéewal ak ñam xam lum saf xéewal ak dégg xéewal ak xol xol nga xam ne sa xol bi gis nga ni muy li muy yëg ci mbëggeel li muy takk ci xam-xam xam nga xol mooy takk xam-xam loola xéewal googu kenn mënu koo calculer moo tax nee na su ngeen ko doon jéem sax du ngeen dem yonent mi nga wax bés ne اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك mas na ko wax bés de waaw mas na ko wax bés nee na baxil xel juróom balaa juróoma ñëw yow nit ki gëm ëllëg gëm yowmal qiyaam ne bés dana dikk nga taxaw ci sa kanam borom yow la ñuy waxal de wax ñëpp moomuñu ko de wax wax ñëpp mënuñu ko moom yàlla ci boppam suy wax ci alquran day wax ba ca fin ba ne li qawmin yaaqiluun lii borom xel ya moom li ulil albaab borom ñi nga xam ne seen xel yi mi ngi nangoo fonctionné li qawmin yadakkaruun ñi di réfléchir wax ji itam ñëpp moomuñu ko ndax ku gëmul yowmal qiyaam kenn mënut a wax ak moom kenn mënu koo waar bokk na ci ponki ngëm nga war a gëm yowmal qiyaam gannaaw ba nga gëmee ne yàlla am na nga gëm ne yonent bi yàllaa ko yónni nga gëm ne yàlla wàcce na ay téere nga gëm ne am nay malaak nga gëm ndogal lu neex ak lu naqari war ngaa gëm ne yowmal qiyaam am na te dina dikk kon yow moomu lay waxal de dama ne yonente nee na bayil xel juróom balaa juróom a ñëw sonnee ko nee sa ndaw gi bi nga nekkee waxambaanew tooyam nekk ci sa digg doole laa ilaha illallah nga xam ne dara méttiwu la man nga daw ay kilomètre te doo ko yëg ndax yaa ngi ci sa temps nee na bayil xel profitowal waxtu woowa balaa màggat a ñëw ngay xëy rek ne sama nangam mi ngi métti la nga mënoon ngay foog ne yaa ngi ko mën ba léegi waaye boo dewee deux pas trois nga xam ne démb ak tey wute nañu doo ko xam de ngay foog na la nekkoon ci yow ba léegi ma ci yow balaa nga koo xam rek nga def test waaw nga xam ne léegi nag dëgg-dëgg yaa ngi commencé magal ba jaaw bi commencé génn commencé am ay sët ah c'est c'est logique. yow yaa nekkoon xale dem ba ami doom sa doom yooyu di ami doom ñooñu sax ñu ngi commencé màggat waxuma la ak yow kon que yow daanaka war nga xam ne dee rek dikk dee rek moo a dikkal fi mu ne ba màggatee jàppal ne dee dikk na rek nee na wér gi itam na ci profito balaa feebar a dikk jamono ji nga wéree mën nga am lu ne mën nga def lu ne mën nga wax lu ne ci lu baax man nga xam lu ne ndax yàlla jox na la tous les moyens inna samaa wal basara wal fuada kullu ulaika kaana anhu masula waaw loolu mooy mooy jàng mooy xam mooy am moo nekk noonu sa dégg gi ak sa gis gi ak sa xolbeek sa lamiñ beeg loolu mooy moyen pour xam ak sa loxo yi ak sa tànk yi moyen pour am ngo soo bëggee am yii soo ko amee rek war nga mën a am soo bëggee xam yi ma la wax soo ko amee rek war nga mën a xam itam dara doxut sa digganteeg am dara doxut sa digganteeg am ak xam nee na bayil ma xel sa am jot gi waxtu wi nga amee jot profitool balaa ngay occupé bis ngi dikk boo xam ne ndax yaa ngi nekk célibataire soxna sax amagoo soxna sax amagoo su la neexee foo dem fanaan fa kenn lijjantiwu la xam nga boobu am nga temps foo dem fanaan fa kenn du la lijjanti nga dem ba benn jamono joo xam ne mën a toog wala yaa ngi ci métier boo xam ne fi mu ne nii léegi réussir nga ci métier bi léegi nag léegi dañ laa tënk nag du waxtu wala neex génn du waxtu wala neex dem temps sax amatoo ko léegi waaw nga dem ba ci yàgg njaboot gi wër la nga dem ba ci yàgg commencé commencé nekkaat ci yeneen programme kon nga xam ne waxtu wa nga amee temps waroon ngaa profité xam lu bari am lu bari dem fu bari dégg lu bari gis lu bari nee na nga profité sa dund gi waxtu wa ngay dund balaa dee a dikk xam nga nit ñi dañuy dañuy juum yenn saa yi duñu seetlu su nit ki feebaree ñu xalaat ne day dee waaye feebar li mu jàkkaar lool mooy mooy mooy wér dund moo jàkkaarloog dee comme weex ni mu jàkkaarlooy ak ñuul contraire la kon nit kuy dund yow yaa war a xalaat bis bu yàlla sàkk ne dee ma ngi lay dikkal léegi léegi léegi léegi léegi laa taatikum illa baxta day bette soo feebaree nga am yaqin ne da nga wér mu jeex tàkk déggal yàlla mi ngi géeñ ci alquran ne mi ngi géeñ ci temps c'est-à-dire fajar xam nga fajar temps la guddi guddi itam temps la mu ne wal fajri wala yaaleen ashr wa shafii wal watr wal layli idha gis nga xal fi daalika qasamu li fi xijr nee na maa ngi génn ci fajar fajar ni mu amee importance rox yonent di wax ne rakaatal fajri rakaatal fajri xayrun min ad-dunya wa fajar ñoo gën àddina ak lu ci biiram ko waral mooy xam na ne ñu bari dañ koy négligé dañ koy sàggane day fekk nelaw yi neex day fekk nelaw yi neex am na ñoo xam ne dañuy yéex a tëdd ku tëdd deux heures du matin heure fajar noo koy jóge koo xam ni dem sa bakkan bi notagoo ko nan ngay jógee fajar doo ko man nee na maa ngi génn ci fajar di génn ci fukki guddi ya waaw maa ngi génn ci safa ak watr ak witr gis nga importance gi mu am yi muy génn yëpp yu am importance doo ko bàyyi mukk wax na nañ la ko ba sàmm safa maanaam julli maanaam nga kàbbar jàng fatiha bu sell teg ci sa bismi rabbikal a'la bam jeex ñaareelu rakka bi nga jàng fatiha bu sell teg ci qul yaa al kaafiruun jeex nga toog taaya sëlmal wittar bi nag moom benn rakka lay doon nga jàng fatiha bu sell teg ci qul huwallahu ahad teg ci qul a'uudu bi rabbil teg ci qul a'uudu bi rabbin naas après nga daal di daal di taaya sëlmal seetlu nga loolu importance gi moo tax ma di la ko répéter kon nag wa shaf wal wat gis nga yooyu ma ngi ciy géej ndax importance ma ngay géej ba tey te wa layli ida yaxsha waaw maa ngi géej ci guddi su demee ba lëndam kurus ndax foofu la mbóot yi di ne waaw lan mooy mbóot mooy lasaraar secret yi secret yi nëbbu yi rawante gis nga guddi mooy toolub góor yàlla yi fa la ñuy rawante ku la raw rek ma ngi la rawee ci guddi yabituuna li rabbihim daan wa qiyaama waaw ñu ngay sujjóot rek ñu ngay sujjóot rek ak a sigg cest à ñu ngay julli rek mooy góor yàlla yi yàlla tànn dëgg dañuy fonk guddi ndax fa la ñuy rawante te ñoom xam nañ ko xam nañ ne mooy toolab mooy course waaw mooy course bi ñi di dikkar fa la ñuy jóg di dikkar yi jàng alquran mooy jàng alquran ana allayli ci digg guddi loolu xam nga ne secret bu rëy ci ne mbóon mu rëy ci ne borom kurus yu jóg ñoom itam ci guddi gi la ñuy def la ñuy def waaw war nga xam ne guddi yaatu na yàllaa ngi giñ ci temps boobu nga xam ne mooy guddi ne bu demee ba lëndëm kurus nga xam ne fa la mbir ma ne déggal bi li wax ci alquran huwa alladi jaala layla wa nahaara xilfatan liman araada an yadakkar aw araada shukura nee na mooy def guddeeg bëccëg ñuy wutuwante waaw walal guddeeg bëccëg ni ñu amee organisation nee na loolu nag képp ku bëgg waaru mën nga ci seet ba waaru ku bëgg sant yàlla itam boo ci xoolee sant yàlla xam ne yàlla ku jara sant la ku jara sant la waaye sant ko yombut ndax moo ko wax wa qalilun min ibadiy shakur qalila ma tashkurun waaw sant yombut de sant yàlla laa ilaha illa surtout jamono jii tey la gën a jafe jafe woon na démb wax ma la ak tey kon nag ku man jéem a delluwaat cosaan aleykum bil atiq maa ngi lay dénk nga nga jëm jéem a jéem a xam lan mooy cosaan waaw nga jéem a xam lan mooy cosaan cosaan lan li fi yonent fi bay woon ndax moom mooy mag yonent bi képp ku mag rek moo la mag kon nag bu ñu waxee cosaan nga dellu xool lan la fi bay woon